am ñaari institution yoo xam ne euh, qui font polémique muy le haut conseil des collectivités territorial ak li nga xam ne moom mooy le conseil économique social environnemental da nga leen di maintenir dans l'armature institutionnelle wala danga leen di supprimer waaw non moi je pense que war nañ ko mën a maintenir euh, d'abord liggéey bi nga xam ne moom la sant parce que boo jëlee le haut conseil des collectivités territoriales xalaat bu baax la parce que boo jëlee gox goxaat yi neenal sànq développement léegi dafa nekk développement local développement global euh, te état dafa sori population yi donc gox goxaat yi ñoo gën a jege askan wi. yaa jàpp naa ni am benn kuréel boo xam ne day remonter mais de manière optimale de manière efficace préoccupation yi nekk ci gox goxaat yi di ko jox à l'exécutif pour liggéey bi gën a baax yàqul dara. donc je pense que c'est une c'est une excellente euh, faut seulement nag ko jox ko plus de moyens bien sûr. pour que justement communes yi mën a gis seen bopp dans ce travail parce que boo nekkee un conseiller dans un département te amoo moyen dem def toutes les communes mën a euh, yëkkati euh, maanaam jël lépp nga xam ne mooy seen ay aajo gën kay indi au niveau de de l' pose problème donc je pense que war nañu ko mën a renforcer pour que gox-goxaat yi mën a jouer seen partie. mais est que sentir nga euh, l'utilité de ces institutions dans la marche on a plus l'impression que <laughs> dañu ko et d'ailleurs président au début il était d'accord qu'il fallait supprimer le Sénat qu'il fallait pas créer de nouvelles institutions waaye xam nga boo ñëwee toog da ngay bëri clientèle politique boo xam ne war nga leen caser est-ce que sentir nga yow ci sa présence au, au niveau de l'État seen utilité est-ce que c'était pas plus pour caser une clientèle parce que euh, bon Aminata Touré du ci temps am jéem na commencé na un travail mais mais mais mais damul Idrissa Seck son passage euh, au niveau di du conseil bon euh, c'était plus symbolique qu'autre chose on n'a pas beaucoup santi euh, seen seen travail yi seen seen études yi euh, seen investigation yi ñu ñu sotti ko Euh, ci li nga xam ne moom mooy gafaga état bi et puis citoyen bi toog ne ah moo ne au oh, conseil am na njëriñ moo ne conseil économique am na am na am na am na njëriñ pourquoi vous voulez maintenir des des des, des institutions yoo xam ne yëguñu seen taxawaay <laughs> xam nga am na am na peut-être institution yoo xam ne peut-être duñu gis euh, peut-être le citoyen lambda du gis euh, l'impact mais tey boo jëlee le conseil économique social environnemental xoolal ña fa ña fa ña fa teew ce sont des des des hommes politiques valeureux par secteur privé ñu nga fa nga ay ay industriels yu fa nekk am xam-xam yoo xam ne euh, comme ñoom seen rapport président de la République lañ koy jox peut-être aussi que le président dugal na ko dans des politiques publiques que ñun les citoyens lambda ñu mën ko xam donc jàpp naa maanaam institution da ngay xool lan moo sabab ñu créé ko xool ban mooy mission ma dama jàpp ne le secteur privé sénégalais di génne ay xalaat di ko jox gouvernement pour que gouvernement dans ses politiques publiques au niveau de la fiscalité au niveau de de mën ko ca dugal je pense que euh, yàqul dara. donc yow daal jàpp nga ne c' est des institutions utiles. ah oui moi je pense que c' est des institutions utiles yoo xam ne mën nañu leen améliorer nag parce que je trouve que seen moyen euh, bëriwul parce que boo yoree 500 euh, commune du Sénégal nga nekk kuréel ba nga xam ne yaay saytu seen ay aajo évidemment ba mënul teew foofu dans de manière régulière Euh, mën na am difficulté renforcer en moyen renforcer seen renforcer amélioration collaboration ak l'exécutif